président conseil départemental bu Bunkiling ñu ngi lay nuyu di la di la dalal jàmm monsieur Diayte. bonjour madame maa ngi leen di nuyu di nuyu seeni téléspectateur téléspectateurs yi yëpp. Hmm. di leen wax ne yéen du leen ak jàmm. Hmm, jërëjëf euh, monsieur Diaité alors njiitu réew mi euh, président Macky Sall ñu ngi koy xaarandi ca Sédhiou ca lu semaine bii di ñëw euh, nekk région bi nga xam ne fa la Bounkiling nekk ngir benn tournée économique Chérif ñu bàyyi la nga tàmbali waxtaan mi waaw président comme yaa jiite conseil départemental bu Bounkiling bokk ci département yu Sédhiou mais ñu nemmeeku ne. jafe-jafe bari na fa trop ci wàllu infrastructure ci wàllu xëyu ndaw ñi ak yeneen domaines yoo xamante ni ñi ngi ciy xaar état bi bin érigé Sédhiou en région ba léegi lan moo tax mbir yi yéex. waaw lan moo tax mi ngi yéex ça dépend ci appréciation bi nga koy jox ak ki koy apprécier ak ci ban échelle la koy apprécier pour man yéexu. ak ci constat bi ñu gis. parce que boo xoolee euh, mun nga def jàngat par euh, ay comparaison statistique avant président Macky Sall di jël pouvoir Sédhiou amutoon hôpital hôpital régional bi fa nekkoon je prends des exemples hôpital la boo xamante ne mun nañu wax ne dispensaire la mais tey Sédhiou am na hôpital boo xamante ne c'est un hôpital de dimension sous-régionale avant président Macky Sall di jël pouvoir boo jogee Dakar di dem Casamance di dugg région de Sédhiou jaaree ko département de Bounkiling da ngay jaar par Gambie. mun nga yëndu bi nga fanaan fa doo jag doo jéggi baag bi léegi boo ñëwee cinq minutes ngay def nga jël sa ticket nga jël pont bi dem avant président Macky Sall di ñëw boo xoolee Marsassoum yoon bu jógee Sédhiou dem Marsassoum continuer dem génn côté Bignona yoon boobu kenn goudronné newu ko c'est moins de cent kilomètres mais mun nga fa yenn sans compter baag bi fa nekk deux temps sur trois da doon panne goudronné nañu yoon bi benn tronçon bu à peu près dix moo ci des boo xamante ne dañ ko war a eggali pont bi defar nañ ko pont boo xamante ne c'est un pont de référence à travers la sous-région ak yeneen ak yeneen boo demee côté fourniture ndox nga jël département de Bounkiling damay faral di wax ne ñetti président ñoo fi jiitu président Macky Sall président Senghor président Abdoulaye euh, euh, Abdou Diouf président Abdoulaye Wade pour cinquante deux ans ils ont fait treize forages dans le département de Bounkiling dans le territoire départemental de Bounkiling parce que boobu du woon département arrondissement la woon sur le même territoire en moins de quinze ans le président Macky Sall a foré quarante-trois forages ci département ci département de Bounkiling mun nga jël ay exemple ak yeneen ak yeneen ak yeneen état nag du loo xamante ne dafay xëye rek di sotti benn bés mais je pense que s'il ne s'agit que de réalisation que de bilan le président Macky Sall n'a pas. mais bu fekkee ne en région vous avez donné l'exemple de l'hôpital régional mais bu ñëwee ci département en tout cas circonscription bi nga xamante ay président conseil départemental bi li ñu ko moo yéexaay bi comparé ak yeneen yi nga xamante ne ay capital départemental nekk Sénégal pour administration bi am ay locaux problème la ci biir dëkk yi boo fa ñëwee voirie bi ça pose problème gone yi ba léegi comme partout Jakarta la ñuy dama lay jël boobu tam on va par la la pédagogie par l'exemple dama lay jëlal beneen exemple du ma médecin mais supposons médecin baa ngi nii am na ku feebar mu nar ko faj mu def ay erreur ba mu nar a dugg ci situation bu grave ñu jëlee ko ci loxoom jox ko beneen médecin pour moom mu eggali paj mi lan la war a def dafay réparer erreur yi ñu defoon ba pare soog a mën a faj looloo dal. dafa amoon erreur yu fa amoon ay erreur parce que dañoo ériger ay collectivité territoriales sans les mesures d'accompagnement président Abdoulaye Wade dafa ériger ay collectivité territoriales ériger Sédhiou en région ériger Bounkiling en département il y avait aucune mesure d'accompagnement. mais euh, monsieur léegi nag loolu bu président Macky Sall la ñëwee fekk loolu mu nar a rattraper erreur yooyu soog a mën a teral leneen. mais il faut ça ça demande du temps. il faut mmh. faut laisser le temps au temps il faut laisser l'action gouvernementale se dérouler dans selon la planification euh, requise. monsieur Diaité sànq yaa ngi wax ci wàllum infrastructure yi muy jumtukaay yi waaye en 2021 am na benn rapport ANSD buy wax ni euh, région Sédhiou moom mooy région bi gën a ñàkk ci Sénégal ak téeméer boo jël euh, juróom benn fukk ak juróom ak lu topp te euh, sa département bokk ci nan la ci toll li nga xam ne moom la ñuy defal askan wi ngir ñuy mën a gis seen bopp ci seen dundin muy wàllum liggéey wàllum lekk wàllum dëkkuwaay ak yeneen ak yeneen. non ba léegi région de Sédhiou mi ngi bokk ci région ceinture ndóol bi. moo nekk ci kaw ci ci Sénégal loolu c'est des statistiques euh, indéniables. région de Sédhiou ba léegi mu ngi bokk ci région yoo xamante ne ñoo gën a tardé ci mbirum infrastructure. ci mbirum euh, équipement collectif mais dama bëgg a wax ne loolu c'est des c'est des impondérables et des erreurs. de, de gouvernance que le président Macky Sall a trouvé là et qu'il cherche à rattraper. Mais il est là depuis. Rappelez-vous, je vous il est là depuis. man wax naa en moins de ans il a foré 41 dans le département de Bounkiling. Oui. là où il n'y a eu que 14 forages en 52 ans. waaw monsieur Diakité waaw xam nga dafa yomb président Senghor ñoom ñëpp daf ko ay cuune loolu yomb la euh, man dama lay jox exemple Kédougou. daaw c'est vingt tonnes d'or yoo xamante ne dañ ko jaayee vingt tonnes d'or bu ñu ko doon xayma si gramme mu ngi jaar trente cinq mille mooy sept cent milliards le président est là depuis douze ans ñaato tonnes d'or la ñu jaay si Kédougou pourtant ça ne fait pas du Kédougois maanaam le sénégalais le plus riche <laughs> faut m'expliquer ça waaw mais xam nga problème mu exploitation minière d'abord pourquoi ñuy jaay suñu or mais pourquoi duñ ko jaay buñ ko jaayul kon ban njëriñ lay am or. ñaata lañ si am. non attendez. est-ce qu'on a 750 milliards chaque année après bon, la vente moi, de l'or. vos chiffres je ne peux pas les vérifier parce que j'ai pas les chiffres. moi ouais. je suis je suis un spécialiste des chiffres chiffre bala ma koy contredire day fekk ma am documentation. inspecteur des impôts. voilà donc euh, ces chiffres vous c'est vous qui avez la responsabilité de de dénoncer vos chiffres vous euh, yaa xam foo leen foo jëlee ces chiffres yi mais li ma xam daal mooy. or ñaari njëriñ rek lay am ci ci nguur gi soit dañ koy jaay dugal ay recette ci keesu nguur gi soit dañ koy déposer ci banque centrale pour mun a yokk suñu doole yi koom-koom par rapport yeneen puissance su étranger yi ña loolu rek lay mën a nekk donc buñ ko déposé wul ci euh, banque centrale dañ koy jaay rek sinon bu ñu ko tegee noonu ba njëriñ lay am c'est c'est un métal c'est d'ailleurs le pire des métals loolu c'est du charbon xaw ma ndax xam nga loolu voilà donc euh, euh, ci wàllu infrastructure routière euh, monsieur le maire am na boucle bu waroon jógee Bambali Marsassoum Sédhiou alors mu nekkoon lu nga xam projet bu am solo fan lañ ci toll parce que dina soqali gox bi surtout ci wàllu banaan nga xam ne euh, région bi daf ci produire lu bëri ci wàllu produit halieutique aussi euh, dem beeg dikk bi gën a yomb ci gox boobu euh, projet boobu fan lañ ci toog. loolu boobu mooy boucle di budget. Mm-hmm. <clears throat> boucle du budget yoon la boo xamante ne benn dorsal la bu jógee Sédhiou dem Marsassoum. Mm-hmm. jaaree ko par le budget une province historique boo xamante ne Bambali mi ngi ci biir. Mm-hmm. dorsal boobu dafa am importance économique bu am solo. parce que zone boobu zone euh, agricole la boo xamante ne mun naa zone sax horticole horticole la. parce que ay banaanare ya nga fa yu bëri bëri bëri bëri zone de pêche artisanale boo xamante ne bu am solo la y a des des tonnages importants de pêche artisanale mais ñàkk yoon mooy tax ba économie bi nekk foofu doxul parce que ñoom dañuy am seen production te dañ ko mën a. écoulé feneen te production banaan banaan bi fa nekk ak production jën bi fa nekk ëpp na population seen demande ak seen consommation mm. kon boog yoon boobu yoon la boo xamante ne dina andi une une plus-value importante dans la chaîne d'alimentation dans la chaîne commerciale et dans la chaîne agricole. ci projet yi phares yi la bokk. ci projet phares yi la bokk. Mm-hmm. commencé nañ ko. Mm-hmm. léegi euh, pare nañu sax euh, kii bi latéri partie latéritique bi. bitumage bi rek moo ci des. mais sànq monsieur Diaye tey sama laaj euh, ba tey tontuwoo ci muy wàllum dundinu askan wi que ça soit xëyu ndaw ñi. wala euh, dundinu askan wi. yi nekk foofu que ça soit xëyu ndaw ñi wala jigéen ñi tamit euh, seen i activité ak xale yi wàllum éducation jàng ak yooyu noonu yan effort la ñuy def foofu ci région bu Sédhiou rawatina ci Bounkiling bi nga xam ne foofu nga nekk lépp ci mën a xeex ndóol bi. waaw loolu. Hmm. Euh, département de Bounkiling duñ ko mën a isolé wala région de Sédhiou ñu mun ko isolé par rapport au reste man c'est vrai que acteur politique la mais aussi damay considérer ne sama statut de scientifique permettre ma pour may wax yenn yi j'ai toujours dit que le PSE l'un des meilleurs référentiels de politique économique à travers le monde la ça c'est indéniable scientifiquement mais am na foo xamante ne PSE sur le papier oui. non non c'est pas sur le papier mais mais monsieur Ndiaye si vous voulez on en reviendra. laissez-moi continuer mon développement. mais le PSE dans sa mise en œuvre. oui dafa am benn faiblesse bu doy waar. Mhm. mooy l'investissement privé. je l'ai toujours clamé même à chaque fois que j'ai été invité. l'investissement privé ñu ngi koy soog a commencer jël en compte te l'État ne peut pas la demande d'emploi c'est pas possible. l'État ne peut que impulser la politique d'emploi. pour que mu mën a impulser politique d'emploi boobu il faut mu def ay jéego pour que capital privé bi mën a dugg bu baax ci cadre politique u PSE bi aménagement du territoire état bi def ko accompagner investissement privé le incitation fiscale yeneen incitation commerciale pour que investisseur mën a am avantage bañ investir uniquement dans la mégapole de Dakar mu dem investir Kédougou dem investir Tamba dem investir Ziguinchor dem investir Sédhiou parce que boo xoolee tey lan moo tax dakaar am problème yi yëpp tey parce que wa ku ku ku bëgg am liggéey boo ñëwul ci zone Dakar entre le triangle Mbour Thiès dakaar fooy fooy amee liggéey loolu loolooy problème bi. Ah, mais monsieur Ndiaye tey comme pour dellu si ci question naa tamit par exemple yan potentialité la war a euh, maanaam sukkandiku. waaw ngir fexe ba gune jeunes yi nga xam ne. maa ngi si doon ñëw Sédhiou mën a am liggéey bañ a ñëw fii. maa ngi si doon ñëw am na benn phénomène bu bees sax boo xamante ne euh, peut-être mérité na sax ñu jàngat ko scientifiquement man dafa mel ni comme seetlu naa ko de manière empirique bu njëkk ba dakaar Saint-Louis ñoo amoon université xale yi dañ leen doon affecté après le bac. orienté Saint-Louis wala Dakar yu ñëw jàng bu ñu paree jàng ñu toog fii. amuñu liggéey mais ce qu'il y a maintenant université yi am nañu dans d'autres pôles comme Ziguinchor xale yu bëri bu ñu leen orienté Ziguinchor jógee Bounkiling jógee Sédhiou dem Ziguinchor bu ñu jàngee ba pare ba am seen i diplôme. bu ñu toogee foofu diir bu gàtt rek amuñu liggéey dañuy delluwaat ci village yi. loolu ak a bëri léegi des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont dans les villages. di def lan ci mbay mi wala. bon dañuy obligé ñooñu nag la ñu war a encadrer. ñu renforcer agro industrie bi. xanaa DER mu fi jëriñ. ah baa ngi fi. mais xam nga DER. ay fina ay financement ay financement la ay modalité la. ak dak yi. pare ban ban système de financement mooy mën a am financement bu doy amul. waaw il faut aussi que nit ki xam naka lay def ba mobiliser financement boobu la loolu yëpp dafa laaj encadrement boo xamante ne euh, ñu ngi koy def mais ba léegi doyul par exemple boo demee département de Bounkiling ñun conseil départemental ci suñu plan de développement départemental 2015 2020 21 dañ fa prévoir benn centre de formation boo xamante ne centre de récupération et de réinsertion des jeunes la centre bi c'est sur fonds propres du conseil départemental ci lañ ko tabaxee on a presque terminé le centre aujourd'hui certainement à l'ouverture prochaine dinañ ko inaugurer mais c'est un peu dans le sens de justement capter ces jeunes qui sont en déperdition scolaire mmh. ou bien qui ont terminé leur scolarité et qui ont besoin d'être euh, réorientés vers des métiers yoo xamante ne c'est adapté aux réalités socio-culturelles du milieu comme ay ay foresterie ay agro-industrie pêche artisanale ak yooyu menuiserie pour que ñu mën a capter la possibilité de d'investir eux-mêmes. Hmm. voilà ci wàllu école ba parce que. après Bounkiling bokk na ci. diwaan après ñu wax ci poste. abri provisoire fii ci Sénégal. Hmm. naka la def bu jooyante ko parce que gis naa benn journal tey critique mu ne sax ministre de l'éducation dafa bloqué benn projet boo xamante ni dañu waroon a changer abri provisoire yi. ah projet boobu xaw ma mu demee parce que du ma dugg ci lu ma xamul mais li ma li ma xam mooy effectivement. Bounkiling bëri na abri provisoire mais Bounkiling bëritul abri provisoire par rapport ni mu meloon. waaw ba léegi non non wax dëgg ci la sincèrement. Euh, aujourd'hui monsieur Diaïté am nga chiffre pour illustrer loolu. Euh, am aw chiffre. exactement 246 moment bi on parle de 246 abris provisoires. j'en douterai. Ouais. c'est des chiffres qui datent de quelle année. non non non yu leer laa ban année la. dañ lay récemment nii nii ñu ah, ngi bon ba léegi jaar deux cent pour pour pour pour que ne yaatal. ma cee d' accord xam nga lu tax. parce que 2012 euh, ba léegi li ñu tabax ci ay CM. li ñu tabax li ñu tabax ci ay lycée. li ñu tabax ci ay école primaire. Euh, euh, communes yi ñun dañuy toog di waxtaan di def suñu dina def suñuy stratégie. commune bu nekk. dina am lu muy tabax ci salle de classe nombre de salle de classe ci année bi conseil départemental dina am lu muy tabax. non je sais non attendez. amul fenn doo dem benn dëkk même France bi ngay gis ni mhm. sur le plan par exemple de la téléphonie jusqu'à présent il y a des coins où il a pas téléphone portable il réseau de, de portable. D'accord. donc alors euh, euh, euh, développement cent pour cent Euh, électrification rurale am na projet bu mag bu nga xam ne ASER porté woon na ko tey au niveau de de de de de Sédhiou justement euh, pour électrifier village yi fan ngeen toll ci liggéey bi concrètement électrification village vous savez que le président Macky Sall a un PUDC moom moo koy euh, liggéey un programme de d'électrification mille mille mille cinq cent villages je crois à l'horizon deux mille vingt cinq mmh. dans ce programme le département de Bounkiling seulement doit bénéficier de plus de 55 villages. En dehors de cela, euh, je crois que vous aurez l'occasion de le suivre. Ci conseil présidentiel bi bi ñu war def foofu il est prévu de construire une centrale solaire à Diaroumé. dinañ ko annoncé ci conseil présidentiel bi. Mm -hmm. centrale solaire boobu ni ñu ko prévoir parce que c'est un projet qui date de longtemps même le conseil départemental avait essayé à un moment donné. de récupérer le projet c'était compliqué mais ni ñu ko prévoir. boobu bu doxoon tey pas seulement la région de Sédhiou mais dina mën a fournir électricité sax dina mën a jaay électricité aux pays voisins comme la Gambie comme la Guinée-Bissau noonu lañ ko prévoir. Euh, Chérif on parle de la situation à la poste quatre mois ginnaaw euh, prise de fonction bi. parce que sànq da nga fi jox métaphore médecin bi ak malade bi comme poste moom déjà dafa nekkoon dans le coma ba léegi sa xaw ma ndax jóge na ci comme yaay médecin bi ban état la nekk. Euh, waaw poste. ci bu dee ci métaphore boobu lañ koy utiliser mun naa wax ne euh, am na parti boo xamante ne ba léegi mu ngi dans le am na partie boo xamante ne mu ngi commencé yeewu ban parti poste moo nekk dans le coma c'est la partie la partie euh, trésorerie finance gestion du réseau parce que ba léegi bi ñu toogee ba léegi amaguñu moyen pour relancer le réseau pour injecter de la trésorerie il est vrai que le président de la République a fait un effort important dafa joxe instruction pour que le paiement des bourses de sécurité familiale revienne à la poste il a injecté 19 milliards à la poste le mois dernier pour le paiement des deux trimestres 2000 premier trimestre 2022 deuxième trimestre 2022 des bourses de sécurité familiale parce que toute l'année 2022 kenn fayul woon bourse de sécurité familiale mais loolu c'est une opération ponctuelle de paiement de masse alors que suñu réseau dafa war a dox tout le temps donc lii doxal réseau bi tout le temps loolu ba léegi président joxe na ndigal aussi pour loolu am mais bi bi mu ko joxee gouvernement bi à travers le premier ministre euh, mon ami et frère Amadou Ba dafa joxe ndigal ne nañu def yenn prérequis il y a des prérequis qu'on est en train de, de d'accomplir pour que le gouvernement libère cette subvention prérequis yooyu mooy plan social bi prérequis yooyu mooy euh, rattrapage comptabilité parce que comptabilité bi depuis 2019 amul woon état financier à la poste on est en rattrapage. dafa audit yow bala ba nga ñëwee audit xool déjà lan fa fekk lan la. Ah non mais euh, man bi ma ñëwee poste soxlawul woon audit. ak coow lañ fa dégg lépp. non non xam nga audit lan la. càmbar pour xam. lan mooy situation bi mais la situation de la poste elle est dans les documents. elle dans les document un déficit euh, cumulé qui faisait cinq fois le les capitaux propres. waroo nekkoon 4 milliards ngeen daa am. Hmm? ma ne on parlait de 4 milliards alors que li ngeen di jëfandikoo lépp ëpp na 15 milliards loolu bari woon waaw moom laa wax ma ne déficit yi les perte li poste di perte chaque année depuis 2016 ba léegi boo ko cumulé ça fait cinq fois les capitaux propres de la poste. Mm-hmm. te yoon dafa ne. bu perte yi defee la moitié de capitaux propres dañu waroon liquider société boobu. dégg nga loolu moo tax bi ma ñëwee l'urgence c'était quoi c'était de protéger la poste parce que c'est vrai que capitaux intégralement public la donc état amul intérêt pour liquider poste mais poste am na ñu mu ameel xaalis. ñooñu am nañ intérêt tey ñu liquider poste pour que bu ñu jaayee la queue de liquidation ñu am ci seen ñu fay leen fay ci seen bor. donc il fallait protéger la poste contre cette possibilité ces velléités là c'était quoi il fallait réunir l'assemblée générale extraordinaire pour décider de la continuation de l'exploitation et valider cela au tribunal ce processus il est en cours l'assemblée générale s'est prononcée favorablement pour la continuation de l'exploitation le tribunal a été saisi pour valider cette euh, cette cette décision donc aujourd'hui on peut considérer que ku bëggoon attaquer poste aussi pour liquidation loolu mënut a mënatul nekk. post finance nag. non ba may wax poste man groupe bi parce que foofu tamit euh, càcc gën fa doon dégg dafa bari trop scandale yi. pour le cas de poste ni mi ngi justice ñu leeral ko mais aussi arrêter l'hémorragie yi maanaam càggante gi doon am ba nit ñi dafa sàcc xaalis bi comme ça. xam nga euh, euh, sàcc bu duggee fenn balay jël dina am lu mu fekk bu bu fa fekkee dara lay mën a jël dëgg la am déet post finance tey amul dara. donc kat lan nga fay sàcc. mais lan jot a jël kon. Ah, ah non li ñu jot a jël loolu dossier baa ngi tribunal. xam naa yaa ngi dëgg kii. Mhm. dossier baa ngi tribunal y a recouvrement de 500 millions en moins d'un mois. dossier tribunal bi. Mhm. y a eu un recouvrement de 500 millions de francs CFA. ko jëloon moo delloo si affaire yi. ma ne ki ko jëloon daf ko. non du kenn ñu bëri lañu du kenn. est-ce que jël nañu est-ce que jëluñu ça c'est le juge qui doit le dire mais li ñu xam mooy am na ñoo xamante ne tuumaal nañ leen dañoo def ay luubal. ñu yóbbu leen tribunal ñenn ñi ñu arrêté leen dossier baa ngi dox ñenn ñi accepté nañu def médiation bi ñu ñëwee dañoo yëngal dossier bi am na ñoo xamante ne accepté nañu def médiation seen médiation tax na ba recouvrer nañu tey 500 mili euh, millions de francs CFA. oui alors poste ko bëgg a transformer ci projet bi def ko poste banque. waaw loolu également euh, fan ngeen ci toll quoi. ci liggéey loolu projet restructuration groupe de la poste bi la xam nga groupe de la poste ñetti élèves ñetti entité la. pardon il y a l' du courrier express international qui fait également euh, l'organisation de circuits de voyage et des circuits touristiques, c'est EMS Sénégal. Il y a l'entité qui s'occupe des opérations parabancaires, Caisse nationale d'épargne, contre courant postaux ak yeneen yoo xamante ne ça, ça ressemble un peu à des activités bancaires, c'est Poste Finance. Et maintenant, il y a le groupe qui s'occupe du métier traditionnel, c'est-à-dire de la logistique du transport de marchandises du transport et la distribution de courrier qu'il s'agit du courrier ordinaire comme du courrier hybride loolu c'est le le le le la la société mais maintenant c'est l'ensemble de ce groupe qui est à restructurer boobu la ñu war a restructurer restructuration boobu tam li may wax ni mi ngi ci cadre plan wu restructuration boobu la. personnellement mais mais historiquement ak leen mën a devenir une banque. quand vous êtes déficitaire entre quinze et vingt milliards alors que banque mënul déficitaire <laughs> benn deuxièmement ba question bi mooy comment se fait-il que poste ak lu ngay wax ni yëpp est-ce que c'est parce que emploi yi maanaam sur emploi dañ bëri dañ bëri ëpp parce que captation fonds yu muy def ak mouvement yu muy def poste war na mën a quand même solde ba maanaam zéro mais de là wala déficit buy nekk ay quinze vingt milliards moom euh, dégg dégg na dayo mais euh, déficit ci société nationale waaw du lu extraordinaire. parce que effectivement société nationale la boo xamante ne société commerciale la. donc à objet commercial. war a mën a def ay ay ay bénéfices. mais ñëpp xam nañ ne société nationale surtout dans les états sous-développés du mën a utiliser tous les instruments commerciaux du privé te dina am toutes les suggestions du public particulièrement le mode de recrutement. donc la poste a souffert de la, la poste a souffert d'un mode de recrutement très en deçà mën par exemple la masse salariale par rapport au poids de, de, du chiffre d'affaires masse salariale euh, waaw ma dégloo dinaa ci pare donc la poste a souffert mm. de beaucoup de suggestions d'une entreprise publique de toutes les entreprises publiques ce qui a amené la poste tey dans une situation telle que le ratio masse salariale mmh. sur le chiffre d'affaires est d'un niveau catastrophique. Nous avons une masse salariale de 19 milliards presque par an, mhm. avec un effectif salarial de 4208 emplois, pour un chiffre d'affaires qui ne fait pas 8 milliards. donc xam nga loolu c'est une catastrophe. dafa am ñoo xam ne seen salaire dafa jéggi woon dayoo. ba ngay door a. non non jéggi dayoo maanaam. pléthore bi pléthore bi. nit ñi ñoo sakkat nit ñi ñoo bëri. façon bëri boo xamante ba salaire yi tollu. milliard et quelques millions par mois. mais mais loolu ban stratégie ngeen ci am monsieur Diakité parce que ñu bëri nañu bi ñu ci am. c'est un ma neex a def. stratégie bi ñu ci am. Mm-hmm. weesuwul li ñu nas ci suñu plan stratégique bi ñu proposé président Macky Sall ba ministre yi plan bi dañuy restructurer le groupe La Poste. restructuration boobu dafay am plusieurs volets dina am benn volet boo xamante ne recapitalisation la maanaam comme société bi daanu na. société bi il faut ñu recapitaliser ko pour mu mën a jógaat. ouvert ah. waaw non pas ouvert non attendez pas ouvert pour pour la société mère la société maire est une société nationale à capitaux exclusivement publics. léegi boobu aussi. boo ko déggee day mel ni lu xaw a compliqué mais compliqué wul xam nga lu tax parce que. filiale yi ngeen. non non parce que état bi xaalisu contribuable yi lañ fay. non non parce que. poste <laughs> parce que notre ngi amel état bi. plus de cent soixante quinze milliards. donc comme état bi mooy actionnaire u waaw te état bi mooy continuer nekk actionnaire u poste. bu ñuy restructurer restructuration lan mooy njëriñam da ngay yokk capital bi. pour que société bi mën a am une santé patrimoniale une santé euh, euh, euh, de gouvernance léegi nag recapitalisation boobu du ñu laaj état bi pour mu génne xaalis comme poste ameel na état bi cent soixante quinze milliards te recapitalisation bi ñu ngi koy xayma ci cent soixante milliards cent soixante milliards créance boobu la ñuy reconvertir mmh. en apport suñu bukki suñu bukki ça devient une une un apport boo xamante ne état bi reconversion de capital de de de de de créance. mais convenons que c'est une écriture. convenons que écriture la. mais c'est c'est légal non c'est légal mais écriture la maanaam du. lu ñuy yokk. mais mais mais mais mais mais société boo koy form boo koy former tey bu la neexee nga libérer juste un quart du capital. Mhm. le reste ça devient une écriture. Mhm. bu la neexee tey boo former société anonyme. capital bi 10 millions la. Mhm. Euh, wala euh, disons 12 millions la bu la neexee nga dem libérer. juste restructuration bi y a des emplois menacés wala. Euh, je ne dirais pas ça comme tel. Ah. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes en train d'élaborer un plan social. Lequel plan social va avoir pour objectif à terme sur les trois ans de ramener le ratio charge salariale sur chiffre d'affaires à environ 55 pour cent c'est ça qui est admis dans les termes de gestion. mais léegi euh, plan social boobu pour ñu mën a def loolu pour ñu mën a andi ratio boobu à 55 pour cent il faut forcément qu'on se débarrasse d'une partie du personnel. ah est-ce que ce sera un débarras non parce que on va proposer plusieurs modalités. am na ñoo xamante ne dina leen arranger tey nga jox leen benn pécule. ñu jël loolu dem def leneen. dina am ñoo xamante ne dina leen arrangé tey nga boole leen ak benn structure état comme DER. comme FONSIS. comme FONGIP ñu mën a lever un fonds nga accompagner leen parce que la poste quand même a euh, une des assurances. donc compagnie d' assurance boobu mun na ñu accompagner ci financement plan social boobule. de manière que sur les trois ans en tout cas tel on est en train de le prévoir dans le plan qui n'est pas encore finalisé mais dañ ko prévoir que à terme sur trois ans de ramener. la masse salariale de manière que la masse salariale sur le chiffre d'affaires soit à environ de 55 pour cent. mooy fonctionnaire yi nga xam ne dañoo domicilier seen salaire ca poste. retard yi la ñaaw la bëgg démb rek Louga on a diffusé un élément où jàngalekat yi dem nañ ngir jot seen salaire jotuñ te ba ñu ci bëri sax ñu ngay bëgg a daw maanaam dem ci yeneen banque yi bàyyi poste. waaw waaw loolu. ak retraité yi am na explication maanaam. man avant may jël post presque fonctionnaire yi nga xamante ne seen salaire domicilié wu nañ ko poste daawuñu woon sax jot seen salaire donc poste amee leen lu bëri bi ma jëlee ma waxtaan ci kilifa gi muy président Macky mu joxe ndigal ne désormais salaire yi ñu domicilié poste bu ñu koy virer nañ ko virer avec couverture financière intégral dans un compte commercial de la poste. et non pas même au trésor parce que bu demee trésor la post fait partie du système de compensation de la BCEAO bu demee trésor fekk ñu ngi ameel BCEAO dara BCEAO daf yi tëq su boobaa dinañ am salaire yi mais dina am lu ci manqué d'ailleurs loolu la ñuy traîner nii ba léegi loolu moo tax mu ne léegi bu ñuy virer salaire u yi nga xamante ne seen salaire mi ngi poste nañ ko virer mhm. dans un compte commercial de la poste mhm. ba pare ñu virer ko avec couverture financière intégrale mais malheureusement bi muy jël décision boobu on ave encore un gap de 400 millions. defal ndànk rek on avait encore un gap de 400 millions donc aujourd'hui sur le quotidien amul sur la gestion courante amul lu ñu ameel kenn mais gap de 400 millions boobu bi ñu koy bi ñu koy bi ñu koy jéem a gérer au niveau de la cellule de restructuration au ministère des finances c'était au mois de décembre le ministre a donné des instructions pour ñu virer ñu 400 yi ñu def engagement bi bu ñu koy dugal ci système bi fekk na toj tëj nañu logiciel xam ngeen ne à un certain moment au mois de décembre dañuy tëj logicielu budget bi donc loolu la nuy xaar pour ñu régulariser ñu 400 millions yi au cours de la gestion bi pour que ñu mën a def un rattrapage intégral sur les salaires domiciliés à la poste. loolu mooy expliquer yenn kii yu ndaw. d'accord c'est bon euh, merci beaucoup merci euh, Mouhamadou ñu fàttali ni yaay directeur général bu poste nekk président conseil départemental bu Bunkiling euh, di la sant di la gërëm bu baax a baax. bonne journée. Chérif. <laughs> <laughs> parce que, le... parce que dimanche la <laughs> mais la programmation du dimanche n'était pas bonne moi j'ai signalé ah. non. que donc finalement il non, arrive non, lundi inchallah parce que hmm. il arrive à l'aérodrome de Séfa. entre l'aérodrome et Sédhiou il a à peu près 15 kilomètres. il a pas de il a pas il y a pas d'électrification. ok te te 17h. bu wàccee foofu 17h. bala muy dugg Sédhiou ce sera 22h. merci et de de lampes qu'à <laughs> merci beaucoup Mouhamadou Diayte ah, sant la gërëm la bu baax ñu jàll ci une l'observateur ak journal Record bonne journée